إلهي سهسان عسى أني مصنفها وبرجاه لنساها نسى الأذى لظلمي القلب من امتلأ jërë ngeen jëf mbokki jàkkaar nañu ci duñu seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu santatee yàlla julliwaat ci yonentam bu tedd Moustapha sallallahu alayhi wa salaam dellu si santaat bu baax sunu yaakaar teeg ëllëg di ko tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ñu ngi leen di jaajëfal lu baax a baax mbokk yi dañoo toogoon fii taxawoon fii woote bis bu mag bis bi nga xamante ni kenn ci jànkati xasida yi waaye itam kenn ci njaboot ak Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul di Serigne Cheikhouna Mbaj jànkatu xasida moo koy amal fii ci Touba Soura ñu wooteen woote bu yaatu mbokki taalibe itam wuy si bu fasantikoo wuy si itam bu am solo moo tax tey bis bi nga xamante ni moom la sant di fàttaliku di ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma ndax la in sàkkartum la azidanakum ku sant ñu dolli la waaye itam xéewal saa yoo ko santee mu sax waaye soo xarabee mu dem kon moo tax sëriñ Cheikh na am yëgeeg am gis-gis di sant sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ren nekk ñaat fukkeelu yoon ak benn kon nag yaakaar naa ni lu olof lu yàgg dëgg la lii yàgg na ànd koog mboolem ay soppeem ne ci biir réew mi ak bitim réew bés bi nag ren mu tudde ko kenn ci njaboot ak seexul xaddiim koo xamante ni dafa jël tànkam teg ko ci siraatal mustaqima di dund zurriyatan tayyibatan tu jaddidu nahja mu mustafa tahidu mu di Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Sohaï bu Mbacke naka noonu itam dara jaale ko wëllëreem xaritam am di jàmmam ñu bokk benn yëngu ci xasida mu di sëriñ Khadim Kebe moo tax noonu soppee Serigne Khadim Kebe gis ngeen leen lu jiitu une semaine ñoo ngi fi tey itam baas bi nii mu taaroo ñoo fi taxaw di ko décorer ànd koog soppee Serigne Cheikhouna yi ne biir réew meeg bitim réew waaye itam xarit yi wëllëre yi am di jàmm yi ñëpp teg nañ tànk tey fii ngir lan feet li seen coloré ak jëmm ju tedd jëmm ju sell yi nga xamante ni moo di sëriñ Cheikhouna Mbaj waaye itam sëriñ Cheikhouna ay way juróom ñëpp ànd ak moom ci liggéey bi waa koñ bi di Touba Zoura ñëpp àndanteeg moom ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom lay def di ko defal Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul seen site internet Istikhama TV kon lépp lu fi ruuse ci suba gi ba cérémonie bi ba jàngam xasida yi lépp incha allah rabbi nam nañ koo dundandoog mbokki taalibe yi en direct kon ca kanam tuuti lépp lu fi ruus waañ wa reportage yi ak li nga xam mooy ay témoignage dinañ ko jël ak ziar yi nga xamante ni yi ñu ngi ñëw njàngam alxuraan mi kaamil yi istixfaar salaatu ala nabi basmala ndax loolu mooy li nga xamante ni moo gën ëpp solo ci bës bi te moom itam moom nañ ko euh, tàmbale waaye itam berndeen mbokki taal bi nga xam ni ñoo ngi fi bàyyi ko jóge ci ay gox yi fasanti ko mand ak bàyyi daam sama caméraman kon ci kanam ñaar ak reportage bi nga xam ni nam nañ ko amal ci ay mbokki taal bi rawateetee ñi nga xamante ni ñoo nekk ci waañ wi ak biti waañ wi lépp ñu fas yéene ko dund en direct incha allah rabbi ci kanam tuuti incha allah صلى وسلم بيا نهايتنا من قبيلا أمري على من أسبلا ستري وأعلى خلاني يسر خير مرسلي خطيا ما الحسين بسره المحسن مبشرا لم يكلمي دعميدا في الخلال عالم جواد يا كلام ما يوزع ذي عزلات ومسلم غزبت ختم سوى ربي لم ينسى وإنني أري سوى سبيل رب العالمين توفيق ربي نسى غير الله فانتساها ولسوى يزمزها كل شاخ وسليم ذكره الآمين لكالكال وجسدي ناجيت سال عرض العظيم بلوب ما ضر نازيم ولياك نبي عظيم وسناني عن سادي نبي توحيد الأحد قلبي يارى بالمنتهات ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قد في سفر خلي وهبي بسفر مستغنيا عن نفر بجند في خلدي لم ينوني مباريس وفيد ربي باريس إبليس لا يباريس جند العظيم سلأحدي لم ينوني من اغترت أو ما لقلبه مرات وليقود في الحارات ربي يا معلم جهادي الله كان للبيما يبقي سلالا سبيما غدا والي خطا بما غاد وغير رقدي هديات الله المهين زاق لخير يا لاهي واليوم بله اليوهي من سآه وفي خادي مدالي يا له البصار بجاي سيد البصار ولي يوم نه نصار لم أنه ما لم يفيدي علمان له العالم مما يشاء من العلوم وسباح بالكلوم منصرفا بسفادي نجيت ربي الكريم بكنت بي ليس تريم أنوارها وليارم أحمد خير صفادي الله رب العالمين صلى على هادي الآمين في الملائكة المكملين عن روحنا وجسدي دايه تلال أو خدي وخادني خير ذا المكرم بالعظيم لم ينهني لا يهتلال أو خدف ولا دلال وخادني كرم بالعظيم مدولا بالمنتخى ساخل خير المتخى خبل وخير دليتو خير معرفة المعظمين خدمة خير العالمين سبل خير ما يمين وبالعمين والعمين وصوب لا تعزمي لم ينهني كفر ولا نصر ولا شرك ولا ما يجلب تقولا والله لا خلامي سين جانا بالمقيم لم تلو در الوقت يعقوب بخير أخوه من فناني عنه الأمين يشكر دار العرش العظيم خطيئتي بدر النويم وانخدع لي سر العظيم النوى والخلم نجد ربي يزيد mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp sunu programme yi fii ci Istikhama euh, TV ñoo ngi fii ci kër Serigne Cheikhouna Mbaj comme ni na ko baaxoo di def ci cant gu mag googu nga xam ni moom lay cantal Serigne Cheikh Ahmed Mbacké Gaynde ma muy cant goo xam ne yàgg na di ko def trop ci suba ba léegi nag daayira yëpp ñu ngi ñëw di siyaare si waaye jamono yi ñuy addoo xam euh, a lu euh, euh, Ba mi nga xam ne moo jiite daayira bi nga xam mooy Madlabul Fawzayni yónni na forte délégation ànd ak indi ak ay tiraanga yoo xam ne yàgg na ko baaxoo defante ki nga xam te mooy Serigne Cheikhouna Mbaj ñi ngi toog ak ki nga xam ne mooy Serigne Dieng ak Ndemba ak ñi nga xam ñoom ñun ñëpp moom lañ àndal xam naa ni sëriñ dañ leen di bàyyi rek ngeen sànni ci kàddu yi sant ngërëm su ko defee ba leen seexu naa di tontu. ñu ngi santaat yàlla bu baax di jëli ci yonentam seen sangub sangu yi di sant sëriñ Cheikh naa Mbaj bu baax a baax di sant mboolem ñu mu bokkal liggéey bi muy liggéey bi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mu mel ne cant la goog da koy def waaye ñun ñëpp ñoo ko ñun la war euh, ñu war koo defandoo ak moom donc looloo taxoon tey suñu délégation bi ñu àndal di waa Kelel Dieng daayira Matlabul Fawzayni ni ñu ànd ak ñoom euh, ànd ak suñu baay suñu mag yi suñu yaay yi euh, ñoom ñëpp ñëw fii ci bës bi nga xamante ni yàgg nañ ko teewe te fas ko yéene ànd ak moom ba fu mu toll ci moom rek mu ñu toll mu toll fa ci ñun lu ko lu ko raw incha allahu rabbi ñu ngi koy jaayante bu baax a baax a baax di sant nag Serigne Cheikhouna bu baax parce que dafa nekk nit bu nga xamante ni kenn la ci ñun ba li ñu am yéene wax ko yëpp làmmiñ bi mënu koo tudd lott na ci di ko wax donc ñu ngi koy santaat yàlla bu baax a baax a baax te di ko ñaanal yàlla guddal fanam wéral ay cëram ba lépp lu mu ak yéene ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi yàlla may ko ko mu matale ko incha allahu rabbi noonu rek leen noonu sant gi noonu la waroon lépp noonu la waroon waaye rek yàlla def na suñ ma matiw ko waaye daan ko jaayanteeg moom luñ ko mën daan ko ci def bu soobee yàlla ñaanal ñu ngi koy ñaanal li mu bëgg a liggéey ci yoon Sëriñ Tuubaa bi nu ànd kaak moom di ko liggéey sëñ kenn ko ci nun mënuñu kaa fay ndax suñ cant gi bu ñëwee buñ demee ci moom lun am jox ko buñ loojuñu benn dërëm nun buñ amoon junni jox ko buñ amee téeméer jox ko loojuñu benn dërëm loolu rek xam nga bu la ko jànkat defalee mënoo kaa fay noo ngi koy sant di ko gërëm ba ca kanam sëñ Touba yàlla na ko yàlla sëñ Touba lafal cat eggale ko liggéeyam fi mu bëgg egg ci barke sëñ Touba bis bi rek waroon waroon nañ cee fanaan waaye rek xam nga yittee jamono ji moo tax na kon dan fi fanaan ba bët seet nu ànd kaak moom ba bët seet jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax jërëjëf ak maire yi ñu àndal yëpp at mu jor ak nii la ñuy def bu soobee yàlla rek kanam la jëm waaye nu ko yéene la yéene gannaaw kanam bis bu ñëwati daal teel na nu koy wax lool leetar ba jàppee bis la dawal ootaam ñëw jox ko Baye Mbaye mi naka leetaru dayira baa ngi nii xam nga kook fam nu teg kawe na lool mënoon na kaa yónnee mbaa mu jox ko keneen naan koy yónneel ma kaa yooyu waaye def ko moo jógal bopp ba indil ko nun moom dañuy wax rek waaye moom mun koo fay sax moom jërëjëf jërëjëf nga xamante si mooy ndaw yi nga xamante sëñ Fallou Ba ñoo jógee Kilal Dieng ñoom la fi yebal ànd ak sëriñ mi ak ñoom sëñ Demba ak soxna yëpp ñu ngi leen sant di la gëm sëñ Cheikh na dafa mel ni dégg nga kàddu yu am solo yi nga xam ne waa Kilal Dieng eh, di si ñenn ci yow yëkkati nañ ko ana yan kàddu nga yëkkati jëmee ko ci waa Kilal Dieng salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu akay jërëjëf eh, xam naa kàddu yi moom mm, mën naa gudd mën naa bañ a gudd ndax lépp sant la sant nag moom daanaka baatub jërëjëf rek doy na sëkk ndax li muy gàtt gàtt ku jëful doo ko dégg eh, ñoom nag wax dëgg yàlla sama diggante ak ñoom eh, ginnaaw bi ñu sëriñ bi boolee ak xaside yi eh, sàmm nañ ko lëre gi dëgg la diggante jàngkat ak kuy jàngulu ñaare ñaare daanañ séq am njàng bu jeexee rek mu jeex waaye nag ñoom itam ñu ngi koy sàmm bu baax rawatina sëñ Fallou ba mi nga xam ni ma nga ca Kolda waaye nag bokk ci dëkk ba nga xam ni kenn la ci nun di borom mm, borom pas-pas boo xam ne ci sunu jëmm ji xëy na yàlla moo ko dogal euh, tàgge boo gis rek dana am jàppal diw euh, muy muy muy muy ku ku ku ku liggéey bi ñor lool wax dëgg yàlla fu mu toll mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi laajte di di di gëstu lu mu xam ni itam sunu mbégte la ma ca Euh, bu nu ko jëkkee tudd donte nekkul ci jataay bi kon am na euh, xëy na taxawaay bu mu am moo tax te xëy na suñu diggante ak moom yàlla moo ko dogal rek waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo ñëw at mu jot tàmbale ko ci sëriñ euh, sëñ Seck sëñ Demba ak sunu wayjur yi nga xam ne dañuy ànd ak ñoom ci naaju tàng wi ñëw kéeleel ak fi xaw naa am ab diggante tuuti te gis nga yaa ko gisal sa bopp ñoom ñëpp ñooy ñëw am am taxawaay boo xam dañ ko ci def seen alal du ko fekkee euh, lu ñu amit dañ ko indi ñëw jàppe ko ci bis bi kon seen fay moom amun ko dëgg la yéen a ngi wax noonu waaye noonu itam amun seen fay ndax itam woote ñu wuy si la euh, dafa neex lool te yéen waxtu wuñu leen ngeen wuy sinu tànga xam leen ñu benn yoon dëgg la ñu ngi seq ak ñeneen am njàng waaye nag Pastef bi ngeen di wane ci noonu euh, ñu bari wane wuñ ko loolu nag noo ngi leen ci sant bu baax a baax sëriñ bee tax ngeen di ko def itam yàlla na leen fay sant nañ bu baax a baax dëgg nañ bu baax jërë ngeen jëf barkalla بلفياد الله waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di leen ñaan jàmm di ko sàkku ci yéen ba tey ñu ngi fii ci cant gi nga xam ne moom la ñuy amal Serigne Cheikhouna Mbaj di ko amal muy sant Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma euh, ñuy topp direct ba ba tey di euh, ñëw ci kenn ci jëwriñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu waañ wi ñoo ko jiite muy Serigne Modou mbay Samb kenn ku ne xam seriñ Modou mbay Samb digganteem ak Serigne Cheikhouna Mbaj moo Modou mbay Samba ak kër gi nga xam ne mooy kër Baye Mor Mbaj léegi nag ñu ñëwoon nag laaj programme bi nan lay doxee ak waañ wi ak li xew ci biir waañ wi Serigne Modou Mbaye Samba man ñu cee jox ay lenn ci leeral depuis ban tàmbalee bis bi ci wàccaay wi ak bi ñu ñëwee ci jëmmi bis bi ak nan la programme bi dëgg-dëgg di demee ci biir waañ wi Serigne Modou Mbaye Samba bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi am mbégte bu baax tey gën a santaat yàlla bu baax ci mi tedd yi comme sëñ ko waxee sànq waxoon naa ko suba sëñ Moussa Eh, bis bi eh, dama wax damay faral di wax ni dañ koy def ci biir kër gi muy doon daanaka am compte ñu commencé ko ba sama borom tafeexal ñu ci ñu dem ñu naan def di ko def ñaari benn mën a mbaxal ak benn mbana a soos vermicelle tey ñu dem ci ba yàlla suturaal nu ba sant gi sama borom nangul nu ko ba ñuy tër ay nag loolu am nañ mbégte ak yaakaar ci ni sëriñ bi ñu ko defal nangul nañ ko ndax dama ci eh, yëge ni am ci xel mu dal ci ni sëñ Tuubaa lañ lañ waxoon ni sëñ Tuubaa ne amul tànk tànk ginnaaw tànk kanam rek am feeñ ci bis bi ndax ku fi ñëwoon ku fi ku fi ñëwoon daaw jéeg ñëw fi daaw ñëw fi ren xam nga ni lii yokku na bu baax a baax loolu la ñuy sant yàlla bu baax di sant sëñ Tuubaa suñu yaakaar ak suñu pas-pas di ci gën a fasu ndax looy def di ko tàmbali di doon ñaar ak ñett tey nga dem ba mu doon ay junni junni junni junni junni nit loolu mbégte rek la ndax bañ koy tàmbali benn daayira nekku ci woon daanaka ñett nit ñeent ñu ñoo lu mu taxaw ñoo koy taxawal sama borom suturaal tey boo boo foo gestu tubaarkalla macha allah daayira yaa ngi nii mbooloo mi tubaarkalla macha allah loolu ak sant suñu borom la waañu nag tubaarkalla wax dëgg yàlla moom gis ngeen ko ni mu demee amagul benn bruit amagul benn jafe-jafe benn yaa ngi nii yaakaar naa sori nanu te xam naa ni léegi léegi tey mosoo mu daal di sont waañ woom ku ne xam na waañ lam baaxoo waaye nag lépp Serigne Touba moo ñu ko moo ñu ko jaral ak borom bis muy Serigne Cheikhouna ndax ak yaram ak fonk doomu aadamam ak mën a nawloo doomu aadama ndax damay wax ni tabe ba tabe jeex tabe sa dara rek moo moo moo am solo te sa borom eh, tàggat na ko ci loolu kon yaakaar naa doon luñ koy luñ koy luñ koy lebal luñ luñ koy fay lay doon eh, eh, damay faral di wax ni nag koo xamul noo koy def na ma def moo tax waaw jërëjëf sëriñ Modou Mbaye Samb ñu ngi lay sant di la gërëm ndeysaan mu newoon ci waañ wi ak soxna yi gis nga ko jëlal jëlal jëlal sama caméraman jëlal waañ waa ngoog ndeysaan jigéen ñaa ngoog ñu ngi waajal bernde xam naa ngeen yéen njaween yëpp danañ kontaan xam naa danañ àndaat ak yéen ci beneen reportage incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a programme ci site bi di Istikhama TV euh, comme ni ñu ko baaxoo muy wàllum ceeb beeg yu mel noonu tubaarkàlla gis ngeen sëñ Seexu naa tey rey na ginaar rey na xabon tubaarkàlla ndax lan sant ki nga xam ne mooy sëñ Cheikh Ahmed Mbacké Gaynde Fatma euh, tey nag ñi ngi fii ci waañ wi gis ngeen waa toog ak sunu yaay ñëpp tubaarkàlla ñi ngi fi nga xamante si mooy ci waañ wi xam naa ci kanam tuuti dañuy def ay quelques personnes yoo xam ñoom la ñuy laaj ngir ñoom fu ñu toll ci liggéey bi ak kenn ku nekk fan nga jóge ngir ñëw ci li nga xam mooy bis sëñ Seexu jërëjëf soxna Ami yaa ngi fi nga xamante si mooy ci waañ wi nga xam ni moom la sëñ Seexuna di waajale li nga xam ne mooy xéwal yi nga bokk ci daayira xidmatu xadim bu sëñ Xaadim Kebe bi nga ñëwee lan nga yëg ci liggéey bi auzu billaahi mina sheytaani rajim xanaa di nuyu ñëpp rek képp ku fi teew sa tur ak sa sant di rafetlu bu baax a baax suñ teewaay si bis bi tey xanaa yëg-yëg bi ma am si bis bi mooy kontaan bu baax ndax wax dëgg yàlla nooru daare ni ak xidmatul xadim benn lañu duñu ñaar ñu kontaan bu baax a baax si fekk si leen fii ñu ànd ak ñoom bis bi liggéey lépp loo xamante ne ñu ngi ci rek ñu jàpp si ba bis bi jàll ci jàmm ndax sëñ Seexu naa day kenn si ñun lépp loo ma Xidma Xewle rek incha allah waa Nooru Daara ne ñu ngi ca ñu bokk nday bokk baay lépp rafet dara ñaawul moo tax ñu àndandoo rek tey ak waa Xidmatul Xadim soppe Serigne Xaarim Kebe ñëw fekk si waa Nooru Daara ni soppe Serigne Seexu naa Mbaj ñu liggéey liggéey bi rek incha allah ba lépp jaar yoon noonu rek lañ ko bëggee incha allah yàlla nañ eggale ci barke Seydina Mohamed euh, jërë ngeen jëf ne mooy ci ne mooy waañ wi gis ngeen xewal yi nga xamante si ni moom la euh, ñu ngi fii na nga xam ne buñ xewloo ba pare yu sedd yi fii la nekk dafa mel ne ñu ngi tax ak génn jëwriñ joo xam ne moo jiitee li nga xam moom mooy liggéey sëñ bi euh, nu ngeen di waajalee lañu war a def ci naan yeeg yooyu waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngi nuyu ñëpp di ndogal ñëpp ci bis bi di ñaan liñ fi def rek suñ borom nangu ko barke sëñ Touba waaw bisum moom ñun moom ñoo nekk ci wàllu ndox mi quoi naa ne zone yaa ngi nii ak góor yàlla yi ba ñëwee ñu toog ñu si zaal bi nii ñu gérer ndox mi ak banjo yi yëpp ak glace yi am naa ne su añee ba pare génnee ndox yi après ñu partage ko si base yi ak gaay yi noonu gars baax yi ak boisson yi man nag du ma jëriñ quoi man moom dañu ma fee dëgg rek man maa ànd ak gars liggéey mais du ma jëwriñ waaw. mais yaay jëwriñ ci fii ah. waaw fi mu ma fi jëriñ moom <laughs> maanaam kilifa gu nekk bitir bi ne lam def loolu la saañ bay xëy rek. dëgg la dëgg mbokk yi gis ngeen ca suba léegi nin ko di defe rek gis ngeen euh, daayira yi yi ñëpp tubaarkàlla gis ngeen sànq jóge nga xam ti mooy fi nga xam ne mooy waañ wi nga xam ni euh, ni ma ko waxee sànq ñu sant Mbaj ak Buub Loog Wàdd moom lañ leen di waajale gis ngeen itam yu sedd yi nga xam ne tubaarkàlla euh, fa lañ jóge sànq nga xam ne si nii ku xewlu ba pare foofu yi dañ lay joxe yooyu noonu ñi ngi ne moom foofu la gaa yëpp di wër muy café gi ndax xam ngeen café euh, euh, euh, ko mu sànni ci kàddu sëñ bi la nuyoo lan ngeen di waajale café ñoo ngi leen ziar baax a baax ñoo ngi ziar baax sëñ Abdoulaye Samb ñoo ngi leen ziar baax ko sàpp ci baax a baax waaw comme niñ koy waajale rek café gi moom xam nga ndaje murit moom mënut a ñàkk café ndax bu euh, tuddee ndaje moo xam si ndaje murit la rek faaw sa xel dana dem ci café donte lu ndaje ma gàtt gàtt sa xel dana nekk ci café kon nag ñun ñi nga xam si jël fii def ñu fii ñoo xam ñoo nekk fii ci kafe gi ma ànd ñoo ñoo ànd ci café kon nag wax dëgg yàlla am ñoo ngi ñoo ngi ciy def suñ kéem kattan daal ba xam si café du fi manqué ndax ko euh, xam si ku añ ba pare fi mu toll boo toog saan jotee dañ naan ana café gi fu fu ñu rek murit moom baaxu na fu mu salmale toog saan rek dañu commencé koy servir café ba guddi geet ñu ànd fas yéene ko ànd ak ñoom bu eh, nekk ci xasida yi café gi di ñëw ba asamaan set wecc noonu lan ko fas yéene defee kon nag eh, wax dëgg yàlla comme que suñ morom yi ñi ngi fii ñii ngi fii ci waañ wi ci wàllum eh, añi ñi nekk fii ci wàllum ndox mi kon ñun ñoo fii ci wàllum café gi kon nag lépp li nga xam si ñoo ngi man ñoo ngi koy def ndax boo gisee boo xoolee fii ci café mbana yi café gaa ngi fi fii ba tokku saan dañuy segg ndax bu xasee ba timis gi maase lépp dañ koy teg ak day commencé servi rek fanaane servi kon la ñuy def moo tax ba soo ba léegi ñoo ngi fii di segg kon nag wax dëgg yàlla kon ñoo ngi leen sant yéen waa presse bu baax a baax di xam si sëñ Seexuna Mbaaj mi si nag moo woote kon nag ñëpp ay wuyu ji xam si murit moom fu ñu gisee café rek faaw rëg-rëg bari kon nag ñu ngi xam si ñoom laa seqal café kon na ñëpp ànd ak dal rek te xam ne mbir mi moom mbiru boo wootee te woote ndaje murit rek faaw café baaxoo fa kon wax dëgg yàlla ñoo ngi sant bu baax a baax a baax di ñaan lii ñu def nii da ko def ay ati ati ati at ci barke Serigne Touba ak xasida yi baax ñoo ngi sant bu baax a baax jërë ngeen jëf. karamati xattu yadi fi xidmati amwayati wa kaana ayni bila fiyani allah lil karami yéen mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu daairatu Touba Binguel Wakana Haqqan man Moustapha Niang ma jiite ko ak mbooloo mu fa nekk di liggéeyal Serigne Touba Serigne Cheikhouna Mbaj mii nag di suñu wóllëre di suñu xarit at mu jot ñu ko def ak sant gu ñuy sant sëriñ Touba moom mii moo ko jàng si tey nag mu am xew-xew bii boole ñu ci boppam yëg ñu yëg waa Binguel gépp wax ñu ko ñu am ci xol bu sedd guy ci ñëw gi ñëw giñ fi ñëwit ñëw gi ak dem gi yëpp yàlla na di yool yàlla na yiwuñu si yàlla na di ak yiwuñu sëñ Tuubaa dencal yow ma li xiyaamatul bar mu fay ñu ko te ñu yàgg fi lool sax ci di liggéeyal sëriñ Tuubaa liñ mën a wax daal muy gudd gàtt am nañ ci mbégte am nañ ci sant ci xam nañu ni sëñ naa boole nañu ci boppam boole nañ ci boppam waaye la ma ko waxoon ca jàng bind nga rek fi bind ngeen moom la luñ fay def lépp ci wàllu jàng sëñ Tuubaa moom moo ko moom moo ko moom fasante ñoo moom kóllëre nee naa ko woon moom fi ngeen jàng xat benn bayitu Serigne Touba fay ci téeméeri junni buñ ko amee jaral nañu ko ndax bayitu Serigne Touba ku loo ko jàngal amuk payam loolu laa ko waxoon keroog bu jàngi tasee moom laa koy feddi la waat fii lii ne moom sant ci bu baax a baax a baax a baax a baax boole nañ ci boppam ñu nit dugal nañ ko ci suñu bopp ca fas yéeneen fasante nañ kóllëre goo xam ne si yàlla na yàgg yàlla nañu yàgg a jàng si mu yàgg mu te mu ñaanal ñu ci xasida sëriñ Tuubaa yi dëkk booba ñu bingeel ñu yàlla defal ñu fa goo xam ne si saa yu dikkee rek xolam sedd saa yu fa ñëwee rek yàlla na fa fekk xéewal goo xam ne si rek xolam dana sedd lool rek loolu lañ koy ñaanal ca mu yàgg fi lool lool lool lool ci barkeb sëriñ Tuubaa li muy def ngi sëriñ Tuubaa yàlla na ko sëriñ Tuubaa karamati xattu yadi fi xidmati amayati wa kaana yi nga xam ne yéen a ngi topp sunu programme yi ci site bi di Istikhama TV comme ni ko baaxoo di defee ci suba ba léegi ndax xam ngeen ni tey jii nga xamante si mooy le 14 mooy nekk bis bi nga xam ni ci la Serigne Cheikhouna Mbaj di sant ki nga xam ni mooy sëriñam bu tedd boobu di Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma tey nag mu am lu spécial loo xam ne dafa am ci bis bi ndax xam nga ni wolof day wax ni ñu bokk teen rek ñoom ñoo war a laxasoo ay goj euh, bis bi nag tey mu def ci lu spécial ndax xam ngeen ne sëriñ Abdou Samane Mbacke mu sëriñ Souhaïbou moom lañ tuddee li nga xam ne mooy bis bi euh, loolu nag delloo na mbatt ca ndaala waaye mu jël bis bi dara jaale ko ki nga xamante ni mooy sëriñ Khadim Kebe mi nga xamante ni ñoom ñaar a séddoo muy sëriñ Touba te ñuy tànnee fi sëriñ Touba ci liggéeyal ko bis boobu nag sëriñ euh, Seexu Namba jël ko dara jaale ko ki nga xam ne mooy sëriñ Khadim Kebe muy lu rafet loo xam ne ñëpp rafetlu nan ko ñu ko ciy ñaanal baax yàlla na ci daje ngërëmul sëriñ Touba Mbacke ndax loolu rek moo war a am ndax ñi bokk teen rek ñoom ñoo war a laxasoo ay goj ñii ngeen gis ñu toog nag ñooy waa daayira xidmatul xaddim bi nga xam ni ñoom itam ñoo nekk ci ginnaaw sëriñ xaadim kebe di ko jàppale ci liggéeyu sëñ bamba bi nga xam ne mi ngi koy amal ci euh, bi mi ngi nii toog euh, muy sëriñ Jool euh, la delloo si njukkal ci bis bu rëy bi nga xam te seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ah jërëjëf sëñ Ablaye ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di jël di nuyoo bi di ko teg ci loxal eh, gaa yu baax yi fi toog rawat naag sëñ naa mii ah wax ji nag mën naa bañ a gudd ndax am mbégte ak kontaante ci ñëw ci kër gi nga xam ne mooy suñu kër eh, baaxoo nañ fee ñëw miin nañ kër gi ba yaakaar naa ki nga xam ne mu lañ fekk si lim ñu gën a xam ci kër gi bariwul ren nag ni nga ko waxee nag muy lu am solo loo xam ne da koo dollu ci cër bañ amoon ndax bu mosaan màggal lañ daan woon nañu bis baa ngoog waaye ren dañoo jox bis ba noppi dellu dara jaale ñu ko te ku ci mel na sëñ Xaadim Kebe loo ko defal rek mel ni ñu ngi ko defal te ñoom ñaar la may wax bokkuñu ndey ak baay lañ bokk kon ñun nag ñun ak ñoom ak soppeem ñu ndey ak baay lañ bokk rawatina ak mu cërlu bis bu mag muy darajaale darajaale nag li sëñ bi wax rek képp ku leen la mën naa laa bis bu laa daal tudd doom mën koo gëm ba tax na waa xidmatul xadim ci seen néew kàttan ak seen néew doole ak seen néew xalaat ñëw nañ ànd bokk moom bis bi ànd kook moom ba bis ba jeex ak jàmm ñu ñu ñaan leen si jàmm di ko ñaanal nag te di ko euh, jottali cant goo xam ne waa Xidmatul Xadim ñoo koy cant moom sëñ naa ndax ñëpp xamal nañ ñu ne sëñ Cheikhouna du gàntu kenn boo loo xewle boo ko ko waxee même bu amee programme dina ko jël ba programme bi ñëw taxaw ci sa bis ba muy ngénte muy lum mën a doon sëñ Cheikhouna boo ko woowee lam lay wax mooy ci liggéey sëñ tubaab bi ak ànd bu rafet ñu xamee ko nag mook seen xaalim nag ak seen seen seen ànd mu yàgg lool ñu nit ab daayiraam muy nooru daayira ni ànd ak ñun muy ànd bu yàgg lool te lépp rafet moo waral tey bis bi nuñ ci mën a teewee rek dañ ko ci teewee lépp noo xam ne am nañ ko ci nag muy suñu xalaat bu rafet ak suñu doole ak suñu alal nañ ko jëf ndax nee nañ ko bis bi moomatoo ko ñun ñoo ko moom kon ñoo ngi ñaanal baax di ko ñaanal yàlla nañ ko yàgg a teewee ñu yàgg koo fekke te suñu borom may ko ay xéewal yu takku ba lépp lu muy liggéey ci bëgg liggéey suñ tubaab bi mu am ko maa ngi sant ñëpp nag di sant waa Nuuru Daarayni di sant waa Xidmatul Xadim di sant awkat yi ak soppe yi bàyyiwuma kenn maa ngi wax ci tur sëñ xaadim ak waa soppe xaadim Kebe waaye képp ku fi ñëw ñoo ngi lay ñaanal yàlla na sëñ Tuubaa taxaw yàlla na la liggéey bi wàllu yàlla nañu am ay xéewal yu ñu dem bay taxawale bis te sëñ naa heure bu ko wootee ñu yokk ànd ak moom ak waa Nooru Daarayni salaam. sëñ Seexuna euh, lan kàddu nga yëkkati lii nga dégg ci jataay bi ak sa diggante ak sëñ xaadim Kebe. asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen siyaare. di am mbégte di amaan mbégte sax la ñuy wax ci jataay bii nga xam ni am nañ ko waa xidmatul xaddim ci njiitu sëñ Mbàkke euh, ñoo nga xam ni bis bi <clears throat> naka jekk seen bis la mos a doon seen bis lañ ko mos a def ndax at mu at mu mos a ñëw nii ñu ci taxawee rek ni lañ ci daan taxawee neexut a yokk ndax taxawaay moom daa am foo xam bu fa àggee mm-hmm. neexut a jëme kanam kon nag kon ñoom naka jekk noonu lañ ci daan taxawee lii ci dolli ko nag ren euh, musu fee jóg ndax sëñ xaadim darajaal gi ñu ko ko dara jaale du ngissal du dara euh, lu nekk ci sunu xol la te mu war a am itam ndax <clears throat> nit ku nekk moom bu la ji teraanga ah teraanga rek nga ko war a mën a delloo ah, te mënu ko jëkk ji euh, li ñu séq bari na wax naa ko sa Youssou Ndiaye mi mu fi yebaloon ci suba euh, li ñu séq ma nag moom bari na mën nañoo toog ay weer <clears throat> du duñu sax gisante wala duñu sax déggante téléphone waaye man ak moom ku ci nekk danga jàpp sa moroom jàpp ko xol euh, loolu moo ci am fi mu nu féete ak li mu nu yéene xam nañ ko lépp lu baax la bu sañoon nu yokk loolu lay loolu ñuy wax loolu lay jëf itam Euh, loolu itam xam nañ ko ndax euh, duñ duñu dof hmm? euh, lu ñu nit defal lu mu néew néew xam nañ ko xam nañ ni mu nu jàppee lii nu ko lii nu ko dara jaale itam dafa war a am loolu laa jàpp ci sama jëmm ni daa war a am moo tax ñu ñu def ko bu ko jaroon bis bu nekk ñu tudde ko ko ñu dara jaale ko ko loolu loolu moo nekk ci sunu xol kon nag nun amunu fayam yónnee na fi itam addiye ju bari joo xam ni du lum séentu ci moom ndax itam bañ koy def mhm. dañ koo def rek te jëmmi sëriñ bi tax ak xaside yi nu bokk te mu rafetal ko lool nag waaw wax dëgg yàlla mhm. euh, mënu ko wax dara man mhm. lu rafet rek la jëme la jëme ci man moom la jëme ci ñëpp itam waaw kon na ko yàlla na ko yàlla saxal hmm, dolli suturaam dool dool dolli ko ay xéewal euh, dëgëral gën a dëgëral baatam ba li mu yéene ci xaside yi moo ko xam suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ñii nag moom awma seen fay moom wax dëgg yàlla gis nga baas bi ni ko ni mu mel sëñ Bay Seck wax na ko léegi at mu jot noonu lañ koy def te yàgg am yéene ji am nañ yéene yi ba bàyyi leen baas bi ñu baas ko euh, man maay gànto waaw te ki nga xam ne moo ko jëkkoon di baas mm, te itam euh, loolu lépp li ma ci jublu mooy sàmm kóllëre mm, mm, ndax waaye am nañ yéene ñëw baas ko indi seen matériel bopp baas ko ba mu jeex te duñ ma laaj dërëm loolu xam naa ko ndax itam li ñu fi def nii duñ ma ci laaj dara ba noppi dañuy wëlbatiku jëlaat seen addiya indi ko loolu nag awma seen fay wax dëgg yàlla waaw mën naa ne ñu ma gën a bëgg bis bi waaw loolu nag euh, yàlla rek la euh, yàlla leen sëriñ bi fay euh, dooleel leen mm, yokk seen i wërsëg barki Seexul Xadim at mu jot lépp lu ngeen fi indi at mu jot ngeen gën koo man eh, di ko def te du leen wàññi dara barke ki lay borom baax bim def ci xar baax wax bi leen abi xaay mbooloo mi góor ak jigéen mag ak ndaw ku jóg taxaw ca kaw jaayu sargal sëñ Tuuba yàlla nga tàggoog tànk yu metti jóg leen jukkal sëñ Tuubaa sunu sëriñ da jar na ko jaajëfe Bamba ki lay borom baax bim def ci xar baax kenn mënu ko wax bi leen antixaa ku làmbu addee sëriñ Tuubaa ñëw jox ko sëriñ Xaadim Kebe yàlla nga tàggoog ñàkk ñëw leen jox ko addee sëriñ bu mag bi jar na ko ku ko def yàlla nga am jàmm jaajëfe Bamba ki lay borom baax

kenn mënu ko wax bi leen adduxaay borom baaxu lim def di xaar ba ahmadul mbakiyu ahmadu ahmadu da leen jaajëfe bamba ki lay borom baax bim def ci xar baax kenn mënu ko wax bi leen adduxaay borom baax Ahmadu Mbàkke yu kenn Ahmadu Ahmadu Xaadim jeewal je rëy naa a badar jaate na noonam yaa doona yaa seexu ba am Ahmadu Mbàkke xaadim jeewal jeerey naa badar jaatew naa noonan yaa doow naa yaa seex baam baay seex mustafa baay sëriñ salilu baay sëriñ baara baay seex basiru nabi noona yaa doona yaa Seex Bamba Seex Basiru ayu Seex Abdu Laat Seex Abdu Xaadar ayu Seex Soybu Xaadim kenn nga doo fa Yàlla may yaa dem ba yaa Seex baayu sëriñ saaliw baayu seex abdu borom dër bi baayu seex abdu sama takk seex ibrahim seex murtada kenn nga dooña fa yàlla may buur yaa dem ba weer yaa seexu ba baayu seex sooy bu mayu soxna Fatija mayu soxna Xarija mayu soxna Asu Mbàkke ka joor Maymuna ko gura kenn nga doo ñaar sa yàlla may bur yaa dem ba wéer wéer yaa ku bëgg Sëriñ Tuuba jógal màggal Sëriñ Tuuba ku ko gudd fan gudd fan gudd fan gudd fan asalaamaaleykum ginaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant Serigne Touba Cheikhul Khadim tey sant Cheikh Ibrahima Fall bu baax di sant Serigne naa mi nga xam ne moom am ànd liggéey bi ñuy def yaakaar naa li jiitu lu mat ñetti at yi ñu fi teew ci bis bi nga xam ne danga koy sant sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu nekk ay soppe yoo xam ne ñu ngi nekk dakaar ànd ak yow lépp ci liggéeyal sëñ bi. bés bu nekk nag suñu suñu bëgg-bëgg mooy chaque jour bu ñuy ñëw fii yëpp ay kaar indi ko indi ay millions yu bëree bëree bëri waaye suñu yéene it yaakaar naa ñi ngi ci xanaa di sàkku nga gën noo dolli ñaan rek ndax liggéey bi moom daanaka dañ cee tuut lool ci di ci doxal ndaaye nag suñu yéene lañuy doxe rek waaye lépp loo xam ne def nañ ko ci it na nga jàpp ne loolu moom suñu yéene ëpp na ko foofu wax nag xaj na mënuñu ko waaye am nañu mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax ci nooru daara yi ñi fi teew ak ñi fi teewul xam ne am na ñoo xam ne amoon nañu yéeney teew ji ay xat-xat téye ba mënuñoo teew waaye ji la wax ne bés bi moom saa yu dikkee dinañ ci ànd ak ñoom ñëpp ñi teew fii ak ñi teewul ñëpp di ci dox di ci wax ba nii ñi fi teew a teew teew ñi ñëw ñu lay wax ne daal ñu ngi sa ginnaaw di sàkku ci yow ay ñaan itam séentuwuñu ci sa fay nag fay ak sëñ bi dong lañ ci séentu séentuwuñu ci sa lenn nit yëfi sëñ bi dong lañ ci séentu man moom la ma ko waxoon ci déw ba rek man soxlawu ma nga xam fu mu dëkk sax soxlawu ma nga xam sama ndey soxlawu ma nga xam sama baay li nga xamante ni moom la am ci yow daal muy yéene ànd ak yow liggéeyal sëñ bi daal mm, maak yow la soxlawu ma am ci yow dara séentuwu ma nga defal ma dara itam sëñ tubaa daal laa laa la jàppe fay ak sëñ tubaa googu noonu dong laay séentu séentu mu ci tag fay séentu mu ci fay keneen ku dul fay ak sëñ bi kon xam naa dañuy wàcc foofu suñu kàddu rek xëy na wax moom dañ ko mënul waaye am nañu mbégte daal am nañu xol bu sedd guy itam ndax yaakaar naa ne ku noon ma dinañu xamante ba bay bay toogi jataay xëy na duñu ko gëm waaye lépp nag sëñ bi la jataay bi nag moom ñoo fi ëpp xel la ki xalaat a ngi fi xam naa dañuy wàcc suñuy kàddu rek bu fekkee am na ko xam ne mën na ci sànni kaddu mu sànni ci ay kaddoom waaye suñu siyaar daal lañu ñu indi woon waa nuuru daaray ni bi nekk Dakar euh, soxna njaay moo jiite soxna yi moom teewul ndax dafa am ay xat-xat yu ko téye waaye ñoom ñëpp seen xel yëpp a ngi fii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, maa ngi leen di nuyu bu baax ñu ko dale ci jëwriñ sëñ Tidiane ci mbooleem ñi nga àndal ñëpp euh, di leen siyaare bu baax tim te di leen wu coono di leen jégalu coono yi nga xam ne daj ngeen ko ngir ñëw fii ànd sax ñun bis bi nga xam ni moom lañuy ñuy def euh, te tàmbaliwul tey mboolem liggéey bu ñu mus a yëkkati rek ànd ngeen ko ak nun li jamono di xat-xat ak li muy metti metti lépp luñ mos a yëkkati rek ànd ngeen ko ak ñun euh, loolu nag ni ko sëñ Tidiane waxe léegi sëriñ bi rekk la sëriñ bi ngeen di wër ñun ñi itam moom la ñuy wër ah yàlla mi nga xam ne moo nu boole nag ak sëriñ Touba ngir xasida yi nu yëkkati ngeen di ko safoo te sëriñ bi waxoon li mu wax ci xasida ci ku koy déglu ah, wala nga di ci bég ah, comparé ko ak ki koy jàng te lim deelee woon ki koy jàng ñëpp a ko xam deel deel bu bu yaatoo yaatu la ah, loolu nag ñun ñëpp yàlla nañ boole dugg ko dugg ci biir sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ngeen ngeen di yëkkati seen alal wala ngeen di bàyyi seen benn temps di ko def ci loo xam ne ñoo ko yëkkati wala ñoo ko woote gis na ko yàlla na leen fayal boppam euh, wax ji du bari euh, sëriñ bee tax ngeen def sëriñ bi moom am na fay sëriñ bi moom am na fay euh, kon nag yàlla na nangu liggéey bi lépp yàlla na ko nangu wax dëgg yàlla sant nañ leen bu baax bég nañ ci yéen ni ma koy waxee bés bu nekk tem noonu rek laa koy waxee waat mbooloo mi ne foofa ak nu mën a toll <clears throat> bàyyi naa leen xel lool ndax seen Pastef waaw Pastef nag moom rek mooy am moo am solo ci ab taalibe lépp loo dugg te duggewee ca Pastef rek euh, sëñ Moussa Ka day wax ni kuy ñëw fasoo wëñ ga mboros ma jagadi kon pas-pas lu am solo la mënta ñàkk ci dundu taalibe euh, loo dugg dugge ko ci rek alhamdulilah rek a ciy mujj kon nag sant nañ leen bu baax ngeen bàyyi ko fa ngeen bàyyi ko paas ñëw ànd ci liggéey bi ànd ko waa tuuba booba ba léegi noppaluwu leen yool bi di ko yëkkati seen addiya di ko joxe loolu sëriñ bi rek tax ngeen di ko def yàlla na leen boppam barki Cheikhul Khadim tiyaa bu ñu aju ñu amee ci liggéey bi daal yàlla nañ ko bokk ak yéen barki Cheikhul Khadim euh, sant nañ sant mën taweesu sant euh, xam maa ma jox sëñ Maam Mor Kayre rek mu mottali jërëjëf sëriñ Cheikh ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi salaa di sant Serigne Touba bu baax itam di leen sant bu baax itam daanaka kàddu yi doyoon na sëkk ci li Serigne naa wax ah ak kàddu yi ñu fi dégg yëpp itam waaye ah, wax naa démb fii bërki dem bi sëñ Modou ñoom ji di siyaare fekku leen fi xañ na ma ne leen bërki dem danoo dem sëñ Mountakha mu ne jàng xasaay tawfeex sëñ Touba la ku koy def ko ne am nga tawfeex sëñ Touba ñaareel ba mooy ku bëgg jàng ko xasaay am nga tawfeex tawfeex mooy li nga wax sànq. sëñ naa mii alal ji ngeen di daje ak fa ngeen déplacé woo di ñëw ba ci moom xam na li tax xas de sëñ Tuubaa yem na dann la te it bëgg ngeen ko bëgg sëñ ngeen bëgg ak xasaay di bu nekkutoon ci xasaay di romb ngeen am naa romb ngeen keneen ku tudd neneen wala ku ko gën a jige sant Mbàkke te defu leen ko kon bëgg ngeen ko bëgg xasaay di yee tax sëñ Tuubaa nag nee lépp lu mu am ci xasaay di sëñ Tuubaa la ko amee lu mu am sëñ bi nee lu mu am ci xasaay di la ko amee wax naa fi barki dem ne leen yonante bi salaa lay law sëñ Tuubaa daa ñaanan li war a na wax war ko tagg lépp sun borom may ko ko yonente bi nabi yu lu muy la mënta bind mënta liir te mooy gën gi mu def bu mën a di bind ba mu mën a liir ñu ne daa kéré arxuwaan wala xalaatam la waaye loole mu war na def lépp sun borom da ko rafaatale sëñ tubaa wax yi wax jooju nga xam ne sëñ doon na ko wax nag mooy wax yi sun borom doon wax li nga xam day jóge ci kaw di wàcc ci moom noonu la ko sëñ tubaa di waaye bu fekkee jëmmi sëñ rek la nga ne jëmmi sëñ Tuubaa moo def nangam faaw nga ne jëmmi suñu borom la ndax lim nañ def boo xoolee mbindeef mënu ko li sëñ Tuubaa def mbindeef mënu ko kon nag jëmmi suñu borom la kon nag ni ngeen jàpp ne liggéey bi am ngeen ci tawfeex suñu borom yonente bi dañ leen di fay salaale law sëñ ndax yonente bi ne képp koo xam ne defal nga jànkat xasaay dara soo ëllëgee ma fay la nee dem na ba daa jóor sëñ Tuubaa li mu yoroon lépp ba amatul ko jox ci la ànd nag moom nag daal di delluwaat ci ki nga xam ne du jeexal mooy aji des ci mooy sun borom moo tax mu ne da lay ne law ala Muhammad yàllaa ko tegtalan Muhammad waaye nag da lay ne law ala laahi bilaa yàlla daa dem ba tegtal ma boppam mooy delloowaat ma ci boppam Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee créé wu dara loo xam ne aw yoon wu dara yii nuy wax naan yoon yi nangam nangam Sëñ Tuubaa créé wutu yoon ana muridullahi inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ñi jëm ci yàlla yàlla ne ci nit ñi ci man ngeen jóge ci ngeen di delluwaat Touba gi alis na amuna waa amina sal Touba la wasal maab ñi gëm tey rafetal Touba ñel na leen xasida yi mooy li nga xam ne mooy suñu borom waxi suñu borom yi képp koo xam ne rab bi wa mattu xayra mustali xaada lii jumlatal mona bin xilaab kon jàpp leen ne lii ngeen def maanaam liggéey bi Sëñ Tuubaa dëgg mooy lii coono yi ngeen daj ak ni ngeen ko dajee ak yëkkati seen alal di ko def def ngeen ko fu ko mat a def ndax bis bi ngeen ko def bisub Sëñ Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma te moo am cëru doomu Sëñ Tuubaa de liggéeyal Sëñ Tuubaa kon nag fay yooyu yëpp da ko boole rawatina moom mi nga xam ne ak yëngoom ak dalam lépp ci xasaay di la ba muy gone ba tey yàlla da koo lii mooy métier amul leneen lu muy bëgg lu dul lii nga xam ne li ëpp ci li muy wax salaatu ala nabi la kon kooku doog ku jar a jàpp la kon nag ni ngeen xam ne fi ngeen jàpp fa la dëgg la li nga wax dëgg la donte xamut seen i waajur yeneen waaye yonente bi de daana wax ne wala sëñ Tuubaa daana wax ne bari nit ñoo xam ne dañu ñëw ci man jàpp ne xaw ma leen fekk xam naa leen nit ku sëñ Tuubaa nag noonu la mel la nga def bu sëñ bi bu leen sëñ bi di fay seen seexu ni mën na ko bañ a yëg maanaam li li ngeen koy defal ci lu baax sëñ Tuubaa day xëy leen dottal ay xéewal ngeen jàpp ne moom fekk boobu sëñ bee def noonu sëñ bee def nitam képp ku ko jàppale nag la ma waxoon ne ku ma teralal ab jànkuwut xasaat bu ëllëgee man suñ coow ma teralal sa bopp la ma waxoon maam Cheikh ko bërki dem fii mu ñëw ne ana ku ana ku melal ni jànkat yi ñu jàngaat ñu ne ko lii di Cheikh Anta mu ko ba mu ko wax ma loo ci defoon ma delloo la ko mu ne ko mbàkke def naa ko addiyee ba muy ñetti yoon mu ne ko nangam mu delloo ko ne ko bu ma demee ba gisatul ci saayir képp ku def ci jànkat bu ëllëgee man Ahmadou maa lay fayal sa bopp te yoonte bi dana la fay salaa lay law léegi nag kon na xam ne li ngeen jàpp lu wér la te ngeen góorgóorlu ci bu baax ndax boo soppeeb jànk da nga dégg lu ne wax naa ko sëñ Modou ñoom ñii da dégg ñu naan da ngaa ñàkk fayda ki nga topp loo koy toppee fekk sëñ Tuubaa la ah nit a ngi sopp loo xam ne bu ëllëgee day ay jafe rek la ko jëlal di ca daj lu ne waaye daj ci lu baax ndax kii day ku man a na doon ci ñun nga xam ne adduna bi jaarwaay la sun sañan bu ñu tegee ci kusu bàmmeel moom mu yëkkati xasaay te bu ëllëgee dana bokk ci ñoo koy li te sëñ Tuubaa nee na bu ëllëgee dañu xoob seen baat yi baatu baatu wurus danañ laaj nag ñi nga xam ne mas nanoo dajale seen alal jox ko wala ñi nga xam ne mas nanoo dégg kàddoom mu neex leen sëñ Tuubaa nee suñu borom nee na ñëw leen yéen ñii du ngeen fekkee ni may defal sama jàmm ñi kon loolu tawfeex la kon na ñi nga xam ne am ngeen tawfeex sëñ Tuubaa yal na ngeen ci daje ngërëmal sëñ Tuubaa yi ngeen daj ak li ngeen ci daj yàlla na ko yàlla ful ba kenn ko ne ni nga ko bëggee nga ame ko noonu noo ngi sant nooru daay nii yëpp bàyyiwun kenn nag bii Tuubaa ak Dakar fu mën a doon Mboora ak feneen ak jogoog ñun ñëpp ñu ngi leen sant bu baax te leen ñaanal yàlla taxawu leen bu baax ndax lii ngeen def day wax dëgg yàlla moom moom day bu geesoo chaque jour dana gën a góorgóor dana gën a yokk ngir seen jëmm yi te ngi leen bàyyi xel loolu mu leen wax day bàyyi na leen xel bu baax a baax ndax dama laa bëgg benn nit bu sonn ci yow bëgg la te yàlla tax moo fayam te xam na loolu moom bu baax a baax xam ngeen ko jàppe tam mooy sëñ Tuubaa mi ngeen ko leen woon dara tam lu du sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa rek leen di wax ak xasaay di ak nu ngeen di gën di bëgge ci moom ci xasaay di sëñ yi kon nag yàlla na leen sëriñ bi gën a jàppal gën a rataxal diggante gën dolli xéewal bu baax a baax kenn ku ne la nga yéene rek yàlla na la ko yàlla defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñi ngi sant Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ci barkeb Serigne bi ñi ngi ñaanal mboolem euh, waa kër Serigne Touba yëpp ak taalibe Serigne Touba yëpp ñi ngi ñaanal Serigne Cheikhouna mii fekk tey jii di ko ñaanal suñu borom defal ko fan wu gudd ak wér gu yaram xam naa mbooloo mi dañ ne lii du guléet waaye nañ ko baaxoo woon a def at yi jàll looloo waral tey jii ñu dellu siwaat ngir feddaliwaat sunu kóllëre ak diggante jëmmam ji muy Serigne Cheikhouna ak kóllëre ak it boole gi nga xam ne moom la ñu sunu borom boole ñu bokk ko di yëngu ci xasiday Serigne Touba radiyallahu anhu Serigne Cheikhouna nag yàlla dogal muy doon sunu jëwriñ ndax dañ ne euh, nangu péete day day day day ragal péete day day xañe wërsëg kon moo waral saa su ne ñuy biral sunu péete ci moom di gën a jaayanteeg moom ngir Serigne Touba rek tax di gën a feddali sunu kóllëre sunu digganteeg moom moo xam muy guddi moo xam muy naaj moo xam muy taw moo xam muy ngelaw moo waral nag sunu tànk yi ñu jéggi kowaat ñëwaat ngir feddale suñu kóllëre suñu diggante ak moom ngir kat dañ ne nit ki bu wootee lu baax te kenn ku ne xam na ne lu baax kat boo ca defee benn suñu borom da cay yokk juróom-ñeent dolli la ca muy fukk léegi nag tuyaaba joojee mu cay am nag moo waral saa su wootee ñun ñi nga xam ne sunu borom moom la dogal ñuy nekk ci ginnaawam di nab nabi ci lii mu nekk liggéey bi muy liggéey bu am solo muy liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul di xasidaam yi te Serigne waxoon ne kat képp koo xam ne bëgg na ma. mbaa mu ñëw di ma siyaare si sunu borom kër yow kooke yàlla na nga yokk wërsëgam yàlla na nga ko defal ak njëggal yàlla na nga ko mayit alal ju bëree bëri loolu Sëriñ Tuubaa moo ko wax mu teg ci ne yow sunu borom képp koo xam ne wax na ma lu ñaaw wala mu wax ma lu dul noonu maa ngi lay ñaan nga defal ko ak tuub te jàmmal ko mu ne képp koo xam ne nag njortoom ñaaw na ci man maa ngi lay ñaan njortoom lu ñaaw loolee nga wëlbati ko ko defal ma ko njort lu rafet ci moom kon nag lu baax ak lu rafet li sëriñ euh, Cheikhouna mi ne moo waral ñu ne ci ginnaawam saa su xañ na nag euh, wax ji li tax ma bëggoon sëriñ murid mi wax waaye li li yëf yi dafa diis ngir mbooloo mépp bu nu àndoo ne yow yaanu doy xañ na la nga bëggoon nga wax ko lépp lépp doo ko mën a wax waaye daal li lay wax mooy ñun ñoo ngi nii di la sant di la gërëm ngir jëmmi sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ngir kat sa jëmm sëriñ bi rek lañu ciy xool xooluñu ci leneen lu dul sëriñ bi boo nekkoon ci leneen lu dul lii bu boobaa ñun dañuy seeti keneen ku ne ci lii waaye ndax sëriñ Tuubaa moo nu ñor te danoo fekk sëriñ bi ci yow looloo waral nag ñu bàyyi suñu yite yëpp ànd ak yow guddi ànd ak yow bëccëg waaye nag nga mate ko sëkk ngir mësuñoo dem fenn ba nga jël sa bopp yëkkati ko suufeel nu mësuñoo dem fenn ba nga ber sa bopp wane na yéen kat daanaka samay awkat ngeen déedéet yow mosoo koo doxe mosoo ko waxee looy wax danaan kii kat samay nawle lan ñooy ànd ci xasida te nawlonte nag mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne laa yuminu ahadukum xataa yuxiba li aqihi maa yuxiba li nafsihi mu kenn ci ñun du mat lu dul la mu bëggal boppam da koo bëggal moroomam la mu bañal ab nawleem la mu bañal boppam da koo bañal ab nawleem yow foofee nga teg sa bopp foofa nga nu teg loole nga bëggal sa bopp loolu nga nu bëggal loolee nga bañal sa bopp moom nga nu loolu xam nañ ko bu wér ndax duñu ay ay ay ay ay silmaxa tayit duñu ay jaahil ay njaacaar lan kon nag cër boobee nga nu jox euh, nga nga nga nga teg nu foo xam ne yow mi sax ñun teguñu la fa benn ci man mën naa koo tudd ndax wallahi la asim daanaka moom lu ma neex laa koy wax waaye taxul mu wane kanamu démbam ak barki dembam moom benn melo la ni mu mel démb boo ñëwee tey noonu nga koy fekk kon daal ñi ngi lay bàyyi ak ci Touba mi tax ngay liggéey yàlla suñu borom guddal saw fan yokk sax man ba fii nga toll nga toll fu ko gën a kawe balaa déwén sunu borom mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla defal mbooloo maa ngi nii nag seen yéene ak seen pas-pas ci bis bi ëpp na lii bu nu sañoon yow da ngay ñëw rek toog nit ñi di la siyaare ngir kóllërante goo amante ak ñoom ñoom ñooy def lépp waaye nag dañuy wax ne daanu dafa dajul suuf looloo tax nag ñoom ñu indi seen pas-pas ak seen yéene ak seen xol bu sedd ak bëgg gun la bëgg ngir jëmmi Serigne Touba kon lin lay def mooy dañ lay ñaanal di la bàyyeeg sunu borom di la bàyyeeg Serigne Touba di la bàyyeeg xasida yi Serigne Touba yi ndax que Serigne Touba dafa waxoon ne xasida yi danaa nam ma def ci dara sama murit sama taalibe ma dem ba mu yàgg ba ko cay bëgg a def bu ma gestoo gis ci xasida gi defal ma ci loo xam ne si la ma ci doon bëgg a def sax dama koy mujj bàyyi kenn ku ne xam na ne Serigne Touba nag moom lépp lu mu wax rek euh, am na ko ndax dafa defal boromam lu ko kenn defalul loo tax suñu borom defal ko lu mu defalul kenn kon daal ñi ngi lay bàyyi bi yàlla na suñu borom musal la ci am ndog ndax ka Serigne bi mi ngi ko doon ñaan ci sindi di lépp loo xam ne day gàllankoor doomu aadama mu àgg ci la bëgg liggéey yàlla na la loola tegg ci barkeb Serigne Touba ñi di la ñaanal yow it nag ñi ngi lay ñaan mbooloo mi ànd ak yow nga ñaanal leen ba ñoom it seenu bëgg ci xasida yi lépp lu ci waay bëgg lu ci yéene moo xam loo biral la wala loo fas ci sa xol wala loo ragal a wax yàlla na nga ko defal loolee ñu koy sàkku ci yow ñaan nga xam na ne ñaan goo koy boo nu ko ñaanalee rek danoonu dal kon daal lii moo doon kàddu yi ñi ngi jégglu nag lu ci jub ñi ma yónni woon lin lin liñ bëggoon a wax man na sëkk waaye man min délégué pour ma wax maa ma ma maa desee xam wala maa desee jotale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare euh, xam naa kàddu yi du gudd ndax sëriñ Mor li ci ëpp moo koy wax waaye rek euh, kàddu yi ma ciy wax rek mooy loo xam ni dafa nekk ci sunu xolta faaw rek nu biral ko muy ak cant goo xam ni ci yéen la jëm ndax ginnaaw bi nu suñ borom boole sëriñ bi boole nu ci xaside yi ah ñu bokk di ko def kenn ku nekk di xëyee këram di ñëw fii nu di ci ànd te sëriñ bi rekk tax ah cant gi mayel sant nag xay na ci yéen la jëm ndax lii rekk firnde la ci jànkati xasida yi bari nañu waaye itam ñi ciy xewle itam bari nañ waaye ñi ciy def lu mel nii bariwul ah, loolu nag faaw nu sant leen ci ndax kenn forcé leen ko yéen xalaat bëgg lu baax bëgg lu rafet di ko def te ba ngeen ko tàmbalee ba léegi bàyyiwu leen ko itam nag te kon nag cant moom ameel nañ leen ko bu baax waxtu jot fu ñu leen soxlaa ngeen jug a ah, ànd ànd li muy metti metti di bari ay kalma njàngaan waaye nag ndax doomu aadama moom moo bindoo noonu waaye teewul nit ki moom bu lu baax nekk ci moom rek mën mun mënta def leneen lu dul lu baax waaw euh, kon nag liñ leen di ñaanal rek li nu leen yéene ah suñ borom defal leen ko lu ñu leen yéene rek lu ne yàlla nañu ci jiitu kenn ku nekk ci yéen bu nu sañoon li mu bëgg mu am ko na nag mooy dogal yàlla na ko dogal parce que Cheikhul Khadim sëñ Mor bu ko defee nga àggale kàddu yi waaye daal sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen te yàlla na suñu borom nangu ànd bi euh, boole ko ci ànd yi mu gën a nangu te ànd bi di gën a neex ngeen di gën a man seen bopp loolu yëpp mën naa nekk euh, te ku buñ demee ba kenn ku nekk di dem di jàng itam njàngum boppam lii mën naa bañ a dakk waaw ok jërëjëf. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi te wér. niki noonu jataay bi yàlla na tawfeexi Serigne Touba ah, di ñaanal waajur yi di leen ñaanal yéen kàddu yi mën naa gàtt lool. Ah, sëñ Cheikh daa wax kàddu yu mbégte yoo xam ne doyoon na sëkk ndax as gor dëgg mooy toppee gor mooy toppee aw dafa metti ndax li ëpp ci daraja ji wala lu mën a doon bu ñëwee ci jànkat bi la jëm. waaye ku amul tawfeex dëgg doo mën a topp ku nëtt doon dara tam doo topp ma conseil leen ci loolu képp koo xam ne bëgg nga dara faaw nga nu nga toppe maanaam ñi fi jaar ñëpp ci ñu baax yàlla def leen tegtal doomu aadama ak koo mën a doon suñu borom du wàcc la jox dara lu muy jaarale faw mu jaarale ko ci doomu aadama yàlla dimbali leen ba ngeen ànd ak jëmm joo xam ne maanaam jëmm la joo xam ne nit ku baax la ku yàlla dimbali la te it ku leen yéene leen wax ndax li mu wax nii bu sañan tey kenn ko ne bala laa gis dana toog ay fan yi wala bi yi dajale leen fi kenn ku ne di dem di jàng fu ne te loolu la ñuy yéene tey it sëñ Tuubaa mën na ko te it bu ngeen góorgóorloo ci ginnaawam bu leen sëriñ Tuubaa di defal moom mi du ko yëg bu sëñ bi dem banaan la jaajëf wala mu lay seppi def la jànkat mën na ko ba ñu yëg kenn ku ne nag sa jom ak sa pas-pas moo lay jàllale kenn ku ne li li la tax a ñëw na nga ko xam li la tax a topp jëmm ji na ko xam ku fi indi nga xam ne tey sëñ rek la fi indi ak xasaay di barke sëñ Tuubaa boo fi génne loo ko ka fi indi leneen nag moom yow laa ngaas waaye ku góorgóoru ci gën am topp ko te sëñ Tuubaa rek tax teral ko te sëñ Tuubaa tax ndax jafe na jàngkat bu njëkk léegi yomb na ñi ñu toppee waaye bu njëkk da nga daa ànd nit mu jàngi ba ñëw du la jox dara bu subaa bu la waaye nga gën a sawar waaye léegi jamono ji doy na waar damay bëgg ngeen di gën a góorgóoru ndax bëgguma seen pas-pas yi yàqu ndax yéen ñi da ngeen di ay gor yoo xam ne ba ngeen jàppee yàgg na te bàyyiwu leen te dégg ngeen lu ne mën ngeen a toppi ñeneen waaye ngeen fa ngeen di jóge sori na kenn ku ne fa ngay jóge mën naa am sori na nga bàyyi lépp di ñëw di ñu jàppale te sëñ Tuubaa tax amuñu lu leen fayee waaye sëñ Tuubaa mi am fay la leen di booleel tey jàpp na ne dana leen fay kenn ku ne lu sa yéene rek na pas-pas bi dëgër rek gëm naa ne bu pas-pas bi dëgër rek kenn ku ne di nga jotti li nga bëgg ndax gor dëgg mooy mooy li ngeen di def dajale seen alal bokk ak moom bis bi wëlbatiku buy jàng guddi ak bëccëg amul taw amul naaj amul dara amaana bu wàccee këram dugg këram yéen ngeen dem dox am na ñoo xam bu ñuy dox ñibbi mën naa am duñ gis lu leen jaar na ci moom mii dund na ko de booba Touba jamono yooyu la gën a métti ab waxuma la euh, kii euh, ot taxi sax waaye watiir amutoon booba watiir a xaw na am te day jafe bu yee guddee yéen guddi ñu tëdd joxe nan fu ne ci dëkk bi jàngi nan fu ne maanaam tegale ay fan ñëw buñ ñëwee dara duñu ko jox mu toog muñ ko wallaahi asim lii ma leen wax noonu la demee waaye gis nga bi sëñ tubaa di di ko teral xaayim ngi yëg ko lii ko sëñ Touba defal nii xaayim ngi mënu ci dara lii lii nii xaari mënu koo dindi sëñ Tuubaa ko def moo ko tànn def ko mu jànkat yéen ñi itam ku ci góorgóorlu noonu la la sëñ bi def noonu la la sëñ di defal maanaam ndax yoonu sëñ bi moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek lu ci nit góorgóorlu bu yéen ñi dong ngay mujjee yëf yi xasaay ci yéen dong lay mujj yéen xale yi kon nag na ngeen doolee góorgóorlu bay ba li ngeen bëgg suñu borom defal leen ko ci barke xasaay sëñ Tuubaa ñun de sant na leen bu baax ni ko sëñ Cheikh waay xolam bu sedd tax mu wax leen lool waaye am na loo xam ne mënu leen ko wax man mi leen ko mën a wax nag mooy li ma yéene saa bopp laa li yéene billaahi la si laa wax bu ma sañ yéen ñi kenn ku ne da nga taat da nga tedd barke sëñ Tuubaa parce que da ngeen di dégg lu ñaaw lu ne ngir suñ jëmm yi da a ñàkk fayda da ngeen a def nangam te lu ci ëpp ñun ñoo koy jariñoo ñooy yor oto yi ñooy duñ fii waaye loolu lépp ci yéen la jëm si day roo ko de maanaam ku toppee rek bu bu lii jee jeexee ci ki topp ki sës rek lay lay dem kon nag am leen pas-pas te góorgóor bu leen kenn yàqal seen pas-pas da ngeen góorgóor ci jëmm ji te yàlla rek tax ak sëñ Tuubaa yàlla na leen Sëñ Tuubaa defal seen bëgg defal leen tawfeex jërë ngeen jëf sant naan bu baax a baax. yow foo masa dem defalul góor dootu ko jël faal ba du lay tukki tukki bi doot